waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñëpp teew nañ fi di nuyu aussi ki nga xam ne aussi moo ko waral mooy madame le ministre géologie ak mine muy Aïssatou Sophie Gladima Siby ci encore ci taxawaayam rek pour gën a jàppale jigéenu Joal Fadiouth loolu mooy li nga xam ne moo ñu dajale tey ci seen liggéey jàppale bi mooy ci développement ci lépp ndaxte jàppale na leen tey di nuyu encore sama chef de cabinet bi mu ngi nii taxaw muy Babacar Faye encadré ñu aussi ci développement gunge ñu bu baax a baax a baax macha allah moo ko tax a taxaw fii tey pour encadrer ñu waaye madame dafa jàppale jigéen ñi ci formation formation bu ne defal nañ ko jigéen ñi fii ci Joal Fadiouth boo demee ci fruits et légumes boo demee ci céréales locales. nga dem si produit halieutique nga dem si commerce dem ci gestion micro jardinage ku lim da ngay juum mais lépp luñ ci sollicité li nga xam ne jigéen ñi dina leen jëmee ci kanam ba ci salon international yi nga xam ne tey mu ngi am salon national madame mu ngi jël jigéenu Joal Fadiouth ak le département di leen yóbbu di leen won di leen jàppale ci même li ñuy financé dafa ànd ak formation yi nga xam ni day ànd ak ñun duñu accompagner xamal ñu lii financement la lii dañ la koy may lii dañ ko war a may muy gestion marketing boobu ngay wax jàppale ñu si ay kayit yu mucc ay bi nga xam ne tey fépp fu ñu dem au niveau national donte ni Joal fii mais nag Joal tamit tuutiwul fi def Léopold Sédar Senghor ñu bëri jaar fi donte ni am na fu nga xam ne bokk na ci mais fu ñu dem macha allah respecté nañu si suñu critères yu ñu yor loolu la ñu njëkk a formé. tey nag lu ñu dajale loolu muy financé euh, financement bu am solo la def. muy tey financement Joal Fadiouth ay financement bi yemul Joal Fadiouth Joal Fadiouth la ak département de Mbour yëpp macha allah. loo boole pour financer leen. Mhm. tey ji vingt 26 groupe la ñu war a génnee fii tey groupe bu nekk 1 million la yeneen yi day euh, le directeur de cabinet di si dina si ñëw muy département bi ñu war a tofal suba ak feneen ci loolu lañ nekk groupe bu nekk dinañ la jox un million mais waxuma la loolu ku ci nekk motivé na la tuuti rek pour nga ubbi compte. moom moo dugal xaalis bi nga xamni mom la dugal ci banque bi pour ñu mun leen financer accompagner donc mo dugal caution mo dugal assurance accompagner leen ba ñu mën jot ci xaalis boobu xaalis boobu moy ñi nga xamni tay ñu ngi liggéey tout tout tout xam nga ku wax tay Covid bi gis nga ak tay Joal tey sinistré yi fi nek tay ñepp a yàqule waaye tey boo jotoon su astuut boobu dina la mën a accompagner si produit yooyu ngay mën a liggéey ba nga mën a wëlbati. di wëlbati waaw mais nag moom tax na. ñun soulagé wu nañ ba barki démb bu mu fi jóge waxuma la moto pompe waxuma la denrée alimentaire waxuma la li nga xam ne dañ koy liggéeyee suñu gox yi di ñu jàppale lépp dugal na ci loxam moo tax nag gën mënoon naa gën a métti ba tey machine yaa ngi pompe CC mi fi taxaw tey waru fi taxaw dafi taxaw rek pour accompagner mu ba ma commencé ñu ngi dem si distribution yi kon nag dafa yàgg def bu muy def aussi c'est pas nekk na ministre moo tax mu def dafa def en tant que doomaanu Joal Fadiouth bu mu nekkee ingénieur nekkul dara boobu Pauline mo fi nek ci la commencé indi fi VVF en mari protégé gungee ñu jàppale ñu ba tey ñun machallah allah ñu bëgg dem ci salon yi amul salon ba nga xamni comme ni ko waxé sank ou bien foire wala leneen parce que man mi di wax ak yow man ma nek secrétaire élu à la chambre métier de Thiès en même temps la présidente commission foire régionale les trois départements man ma leen yor di liggéey ak ministère de l'artisanat. bu baaxa baaxa baax donc suma la waxé lool xamna naa si dara mom gën nañu gungé bu baax.

xaalis bi dañ koy fay et puis c'est pas la première fois mu leen di wëtal lii financement bi la mais même le DER mu ngi oote pour jigéen yeneen ñu ñu dugal foofu mu war leen financer bokkul ak formation yi nga xam ne ñu ngi leen koy defal kon nag euh, aussi intérêt bi c'est dégressif weer bu nekk yaa ngi fay muy wàññeeku muy 10 mois donc foofu dañu jël rek 10 fois motiver leen parce que am na lu ñu leen jotoon jox ci ay maye jël na fi ay groupement par cinq par dix ku nekk mu may la cent cinquante mille loolu bokkul ci lu ñuy fay macha allah léegi nag lii nag dañ leen wax ne nañu jàng liggéey fay ñu xam ne lii moomuñu ko ministre bi def na doolem def na mën-mënam dugg na génn jàppale leen ñoom it ñu am fulla ak fayda ñu fay xaalis bi te continuité la groupe bi bu jàllee beneen encore protocol day at noonu noonu ba macha allah. wax nañ ak ñoom bu baax a baax a baax a baax parce que xaalis bi buñ leen may ak bu ñuy leble bokkul xaalis bi IMSEC moo ñu ko jox. te nak dañu liggéey ak mom liggéey bu rafet bi moy 3e protocole bu muy dugg man mi personnellement liggéey nak ñom 2 deux bi moy 3e protocole liggéey bu oyof bu ñu gis ñu def ko jigéen ni loolu motax ñu dugg fofu pour ñu gëna jappalé aussi jigéenu cheval Fadiouth et le département